Soxna ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm wóor na yàlla séeréer laa de liggéey rek laa xam ba ma duggee si koñ bi ba tey amante jow ñëw ba suñu kër woo ma ne ma Awa Cissé damaa bëgg ñu liggéey ma ne ko loolu rek laa bëgg parce que damaa fekk sama ndey sama baay ñoom ñëpp ñuy liggéey liggéey cere rek lañ mën mën nag ku may jàppale ma liggéey cere dama bëgg nag ñu jàppale na loo mii ku jara jàppale la wóor na yàlla dafa tànn mbedd yëpp ñëw ba si Aminta Diaw soqal ñu suñu lekket bii ñu ngi liggéey si suñu lekkat bi nag macha allah xeebuñu ko benn yoon lu ñu si am rek ñu jël ñun nag ñu ngi la ba la nga bëgg rek yàlla yàlla moo ko xam daal yàlla na la yàlla defal li nga bëgg si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ku bëgg makki bëgg nañ la man dama bëgg makki fépp fépp laa bëgg si makki. damay toog sama place jaay sax ñuy wax si mag ma ne ko def si ndànk maa ngi arrêté di yóbbu seeni fit. organisation bi ku ñëw nan la ñuy def ak nan lañu damaa waroon dem réunion démb mais yéen ñii moo tax demuma démb yàggul dara président ma dugg ci moom di liggéey ak moom mu nekk ku baax ku am respons ku nekk responsable ku nekk kilifa musuma dem ba benn góor wax ma dara man wala keneen ak keneen su ñun ñëpp macha allah ñu toog biir këram def suñu réunion. mu ñëw oyof macha allah day ñëw jël chaise toog ak ñun di waxtaan ak ñun ubbil ñu kanamam macha allah mu nekk ku baax ku responsable ku bëgg Macky Sall di jàppale Macky Sall di def ci dëkk bi loo xamante ne ñëpp xamuñu ko te day def te du boole ak wax du génn xaalisam di def mu ñëw laa wax jox ñu leket bi ne ñu liggéey leen boolewul dara ak wax taxawul fenn ne jox naa ñii kenn du ko dégg te du benn du ñaar du ñett mu ñuy toppatoo tey jii tey am na yoo xamante ne tey dañ doon xaar suñu jëkkër yi mais xaaratuñ suñu jëkkër yi dañuy jékki saare génn a jóg def macha allah defar ba mu baax togg ba mu baax jox suñu jëkkër yi. président mi Macky Sall la ci ginnaaw Macky la nekk tey kenn sutu ko mu nekk oyof nag macha allah. ñu ngi nuyu le président Thierno Lo

parce que 5 heures ba tey yéen a ngi fi toog ak dogalam yoon bi dañ ko baaxee woon ndax Macky Sall moo doon jàll kenn amul won fooy jaar loolu moo tax ñu guddee euh, ginnaaw nag loolu ñu fi wax lépp dañuy dëggal rek ne Aminata mi militante la te vrai militante la ndax li tax mu ñëw fii ci koñam samp fii coalition Adiana def fii APD liggéeyam ak jàmbaarteem rek moo ñun dañoo nekk kilifa goo xam ne yorul ay jigéenam rek di ko tàllal loxo dafa yor ay jigéenam di leen jàppale ci formation di leen jàppale ci leket yii pour ñoom ñu mën a toog seen kër yi toppatoo seen kër yi waaye tamit nit ku nekk dafa am loo xam ne moo ko moomal bokkam mooy parti ba ngay ànd di liggéey yaa koy tànn kenn du la ko tànnal looloo waral nag déplacement bii tey Aminata wax na ko léegi dootuma ci dellu lii neex na dorop waaye président Macky Sall ay carte koy fal kon nak ku ci nekk yéen moom jaratul ñuy waxtaan ak yeen ndax jox ngeen seen bop makki ba pare. kon nak képp ku fi nek tay gis ne amna ño ñoo dama guñu gëma guñu makki nañ waxtaan ak mom ndax nak c'est le meilleur. c'est le meilleur lutax ndax lim fi réaliser man duma ko lim légui légui soxna si lim nako port euh, pont bi mu leen defal rek moom da cee kontaan te foo laal nag ak fànn boo laal am na lu mu ci def kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant Aminata tey dañoo ñëw parce que li mu fi def rafet na te la président dafa kontaan ci li nga liggéey ba tax na daf la mayaat beneen kalabaas pour nga yokk sa mbooloo pour nga yokk sa mbooloo yokk say nit yokk say militant ñu mën a ànd liggéey lii moo leen wan ne liggéey rek la yàlla bëgg te moom la la président na loo bëgg kon tey ñu ngi koy sampaatal fii beneen leket pour mu jël ko def ko ci baasam yokk ko yaa ko mérité nag moo tax nga am ko président dafa kontaan moo tax mu def lii kon jox ma sa leket bii rek ñu ma ñu ñu ñu tegal la ko. Euh, bon ah, voilà leket bi nag.

moranu tax ñu yag torop ci yoon bi mais sinon xam nañ ne aminata ku mën a mobiliser la xam naa ni bu ñu dikkoon fii fekk lu ëpp li ñu fi fekk mais lii fi fekk bu leen ko xeb de mbooloo la parce que jamono bi ñu toll nii dajale ci ay nit te joxoo leen xaalis joxoo leen ay jox leen ay t-shirt ñu toog di la xaar lu mat ay deux heures de temps kooku ngëm-ngëm rek moo ko mën a def kon xam nañ ni fii ki ñu seet si am na cofeel ci ñun mais ñu mu dëkkal aussi am na fu ñu ko teg bala ñoo sori nag ci wax bi dañuy jëkk a gërëm sëriñam bi toog parce que toogaayam bii dafa am sens ci man parce que xam nga boo dee seeti jigéen fekk boroom këram toog ba pare jigéen jooju di la seet si waxtu bu nekk foo woote mu wuy si la kon toogaayam bi dafa firnde ne li soxnaam di dem moo ko ci jox ndigal te du tey parce que jëkkoon naa fi ñëw yi ma fi ñëw yépp gisante naa ak moom waxante naa ak moom téléphone aussi kon soxnaam ci ndigal lay dox kon ñun suñu xel gën na dal ci loolu kon ñu ngi koy remercier mais di ko xamal aussi que ne euh, ñun ñii di dox dañuy dox mais suñu soxna di fi ne nii defe naa ne mënatul ñoo teg bët ci lu bëri parce que du ñu yendal du fanaanal. ñoo ngi nekk di wër di dox ngir njariñu Sénégal parce que politique bi dafa toll foo xam ne bii nit ñi war nañoo jël politique très au sérieux bañ a foyee politique bi parce que di toog di wax man duma politique bu bee ngay xool politiciens yi ca politiciens yi li ñuy def bu ëllëgee mooy tegu ci sa ndodd mooy tegu ci sa doom mooy tegu ci yow parce que ñoom lañ bu yàlla weesoo ñoom ñooy yor réew mi ñoom ñooy dogal kon nag bu tànn ki war a jiite réew mi jotee nit ñi war nañ koo def ak xel ak ak dal ca bañ koo foyee ñu nag euh, suñu choix bi ñu ko defee ci président Macky Sall leen rek la mooy yaakaar bu ñu am ci moom ak jot gis mu def lo xamni li ñeneen ñi defuñu ko kon nak ki gis mu tambali di yëngal fu nek di doxal fu nek am yene buñu sañoon kooku lañuy jappalé pour que lam tambali won mu man ko agalé ba nga xam ne mi mi yeneen nit du ñew di dindi li mu defoon ak di wax ay jappal bayil moko fi doon def jappal tejeel jappal tejeel gennel ba nga xamni bi le dañen ay ñetti ba ñent at yo xamni yi politiciens yi ñoo fi nek di jappante ci bu ñuy juwo yeen duñ leen la seen xalaat kon bu ñu gisee nit ko xamni ki kii mën na amaat juróomi at yo xamni yi kenn du ko def pression du tok ne li kat na ko def pour bëgg lu neex cerno parce que cerno dana ma wotel mais danaan am naa at amna na tambali won man duma fi nekk di def l'état des lieux damay àggale li ma tàmbali woon kon duma perte temps man nit kooku doy na ma ci loolu beneen bi su fekkee bëgg na histoire retenir turam mooy dina tàmm tànn ci doomu Sénégal yi mën a liggéey mu ànd ak ñoom liggéey juróomi at yoo xam ne yii mën na fee bàyyi loo xam ne lii kenn dootu ko fàtte bu fekkee ne dañu bëgg defar Sénégal aussi ci ay réforme moom président Macky Sall ci mandam bi bu ko amaté moo fi mën def réforme yi nga xam ne bi la yëpp moom la réew mi laaj parce que benn réforme boo xam ne dina ko ci laal moom amul parce que moom wutatul beneen mandat su defaree réforme yooyu yëpp nga xam le Sénégal soxla ba pare bu demee keneen ku ñëw mën nga toog fekk réew mi am lépp lim am pour que nga mën a taxaw yow itam bay sa si tool bi président Macky Sall mooy candidat stabilité koo xam ne kii bu yoree réew mi ay jàppal bàyyil du am day continuer ay change mais jël fi beneen nit boo xam ne bi bu dikkee danaan damay toog seet mbir mi nu mu tëdd la mu doon diggee du ko mun a def parce que xamul woon état bi naka lay doxee kooku baaxul si ñun indi fi koo xam ne kii aussi bu ñëwee day fekk le président Macky Sall tàmbali woon mu ne ko fa ñukk tàmbali di def leneen Sénégal lol dugu yobu ci kanam parce que Afrique dañu am ben problème moy bo diké jël réew au lieu nga fekk kala fi jitu won fam tambalé nga ñew eh, défar ko yok ko di dem da nga naan lim fi defoon yépp naa ko yàq tàmbali leneen loolu nag amu leen jot di ko xaar amu leen jot di toog ñàkk liggéey bëgg a faju bëgg a tekki di toog di bàyyi politiciens ñuy di def seen xeex yooyu bon ñun nak bañ kuy ñew di yak ak ku ñuy tardel motax ñu ni ki nga xam bi tambali na ñun nañ ko jappalé ginnaw bañu xamé né njitum rew yalla suñ borom mo koy def sénégal dañu am ben habitude bu bon bo xamni bi ñak gëm suñ borom la moy so nekké ministre nga nekk député daal ne man ma wara nekk président de la république déedéet président la république suñ borom mo koy tan. ku nekk da nga war a sabablu bay sawale si tool bi bés bu yàlla ne yaa war a nekk président dana la jaarale comme na mu ko defaloon président Macky Sall pour que mu nekk président de la république nañu rafetal defar jikko yi ci jéem a liggéey ca lu ñuy def ñu seet ci suñu borom parce que ñiy wax naan politique agul alaxira fii la yem ay naafeq lañu parce que ndaje bi ñu def tey jii tey kenn forcé wul kenn pour que mu ñëw fii kenn forcé wul kenn pour que mu jël fi kàddu pour wax. kon lu fi waay wax ak engagement bu fi nit jël nga war sa morom bo de yowmal xam manak ko la yow man nak yalla nama yalla suñu borom musal jor yor doomu adama bu ma dikkee daal nit ki bu ande ak man d'abord dana ko respecter dana ko wax luma man luma mënul dana ko ko wax duma yanu os luma mënul luma am nak am ko dana ko def ci doomu adama yi parce que nga tok ay nit tok di la xaar gënoo leen judd joxoo leen ñu lekk joxoo leen ñu naan ñu dem rek ndax nga doy leen ñu doy loola kon boo amee ngor loo am war nga ko delloo si ñoom man façon boobu lay lay cultiver man non lay jàppe nit ñi noonu lay jàppe nit parce que non nanoo dem ànd ak ñeneen ñu bàyyi fi ñëpp ñëw topp la kon boo goree jox seen cër te loo am di ngeen ko jàppale man damay faral di wax ni ñu daan leen bu leen wax ne dañuy jàppale Thierno man jàppale wu leen ma man maa leen di jàppale parce que man su bëggoon lu yomb du ma taxawal parti ba ma président Macky Sall woowee ne ma kaay nga dugg APR damay dum dugg APR boole sama coefficient sama alal ak sama base kon heure bi fekk na ma ci biir palais ba fa lay yendoo ak gars di dem mais dama ne. man dootuma dugg man kenn ci ab gouvernement mu nekk benn kàddu benn kàddu pour nga seppi ko dafay yomb damay ànd ak mbooloo mu am passif nga xam ne buñ duggee kii dina am kii am kii am kii am kii am mu nekk kàddu yu bëri su boobaa suñu waxee dañ leen déglu moo tax may gërëm jigéen ñi ma àndal ak góor ñi ma àndal ay gor dëgg lañu parce que depuis 2014 lañ commencé di and ak président Macky Sall yeen fi ba fi dalé ñew yagna dañ fi jaar di def ci banlieue bi di former jigen ñi di def lépp bu wote joté ñu ne wotel leen président Macky Sall te mosu leen dégg amuñu ci cër amuñu ci salaire amuñu ci souf amuñu ci xaalis mo alal la jël diko def diko ci def di jàppale di jàppale di jàppale di jàppale jigen ñi. alors léegi bu ñu dikkee ba nga xam bilee alors léegi ñun bu ñu defee loolu di liggéey ba agsi fii mosu leen a dégg ku bokk ci APD ba coalition bi muy toog ci ay rajo di yuuxu jox jox la ma léeg jox leen ma léeg affaire yooyu di ñàkk fayda mësuleen ko dégg dañu gëm suñu bopp di liggéey ngir Sénégal mu wooñu ñu ànd di liggéey di ko jàppale ngir Sénégal fas yéene ko jàppalewaat ngir Sénégal léegi nag wërsëgu nit ñi nag yàlla suñ borom moo ko yor mais duñ ci ñaaw duñ def dara li ñu war a def daal pour Sénégal jëm ca kanam danañ ko def te ñii fu ñu leen woo ñu ñëw fa donc nit ñu gore lañu kon lu ñu leen defar rek dañ koo mérité li may def mooy demandé leen comme nuñ ko waxee ñoom ngeen woteel président Macky Sall ca seen ànd bii ngeen ànd yàlla ba yàlla suñ yàlla yàlla musal ci seytaane yalla na yalla def ba yaakar ji nga xam bla am ngeen ko ci man ba tax ma ñew fi ngeen di ma xaar yalla bu yaakar bobu tas yalla nak mo yor wërsëg yi nañ talal loxey ca ñu ñaan ko ca ñu rafetal bu soobe ak yonent bi kenn du liggey lu baax ñu lay fayé lu bon ca son ngeen ci yalla nañ yalla dimbali ba ñu dem aminata yaag say mbokk ak say xarit ñu fay leen japp bi nga xam ne koy japp suñu wet en tout cas man kontaan na ci yow kontaan na say morom parce que nin nga ko xamni ki yo so waxe touti sax da ngay men bay da ngay dem bay bëgg joy parce que da nga nek une femme entière do tricher do wax lu dul deug do nax nit ñi nit ku bax man ci faire un témoignage devant ton mari la ngeen di dund seen nek ak dund seen biir kër xawma ko waruma koo sama yoon war ca nek limay ñaan kay moy mu bax mais lima xam moy soxnam bi genn makoy gis mu may fekk ci c'est une femme modèle exemplaire lolou la xam ci mom ci waaw loolu moom dama ko xam ci mom bu mako jotté téléphone tay ji ndaje bi muy def tey dafa bëggoon nga genn ñëw toog sargal ko won ko ni limi def yéen ko and wa koñ bi gis ko xamni limi def d'accord nga ci mu tegg la man mi wonama téléphone dama ma dama bëgg nga japp ci sama jëkkër pour que mu génn dikk toog parce que ci biir néeg bi peut être la bëgg a toog ci biir mais na génn ci biti pour ñëw mo ma won ko nit ñëpp ñu xam ne ànd na ci mais man wo woote wu woote parce que man waruma woote ci loolu moom xam ne digganteem soxnaam li ko war bu wax fu jotee dina ko def ca man duma ca wax waaw looloo tax bi ma joxe numéro téléphone am woote ma duma ma suma ko wo nit ñaari kaddu rek la koy wax dama ko nan xolal lo décidé moy nek soo ma man ñew ci bir nek bi ñu meeting fu ma meeting fa soo ma ne woon Thierno tey nga ñew sama quartier Aminata Diaw monta tax ba ma ñëw fi te danaa ko ne demal nga def la sa jëkkër bëgg parce que li sa jëkkër bëgg bu la ne bayil parti bi tay sax bayil politique da nga wara bayil politique donc man principe yooyu lay fonctionner moo tax encore fii de plus maa ngi leen di féliciter di leen gërëm ci sa toogaay bi nga toog fii tey très franchement ca man jot naa la téléphone mais jigéen kilifteef rek la mën a am donc vraiment maa ngi ñaan yàlla suñu borom ah ah Augustine waaw waaw Augustine non Augustine moom dégg naa moom mag yi la cent pour cent donc moom dañ ko fekk ci biir affaire bi donc fi on a on a trouvé que bon vraiment y a des gens qui qui de voter pour le président Macky Sall. kon nag yàlla nañu yàlla dimbali rek ba lii ñuy jëm 24 février ñu fekk ko jàmm ci yàlla def mu jig ñu yàlla nañ ko fekk ñun ñëpp ci barke Serigne Touba ak Thierno Fatou.